li nga xam ne mooy wàllu suuf si coow li ci Sénégal littoral bi ay suuf yi ñu joxee kilifa diine tudd nañ ci kilifa fii ci Touba ay journaliste bind ko ku ci mel ni ma Diagne ak yooyu euh, te yow euh, bala may ñëw sax parce que Madiambal Diagne yow xam naa ne xam nga ko Euh, muy bind lu bëri ci Touba ñu bëri jàpp ne fitna yi fi am yëpp maanaam Madiambal dafa nekk nit koo xam ne bëggul tubaa dafa bañ murid yi ndax yow yéen a bokk xalaat parce que daanaka gis muy ñëw kër Sëñ Saliou ci jamono yéen di leen fa fekk. Madiambal man man man bi Sëñ Saliou nelawee léegi gisuma ko waaye soixante 88 ma juumul la taawam juddu mu tuddee ko Serigne Saliou Mbacke jébbuli ji moom Serigne bi yebal ay ndaw ñu tudd ko tuddee ko ko. semaine bi sëñ bi jógee bokk nit ñu ko mujj a gis di fi ñëw jàpp bi bi sëñ bi nekk jógee léegi itam am na ki njabootam ñoo xam ne mi ngi jaxasoo ñoom nit a bàyyi boo amee nit problème ku dëkk Touba rek ñu ne ñu ñu ñu ñu ñu ne yoon wi dafa bañ yoon wi yoon wi Touba ñooñu koy wax ñépp Touba ak yoon wi amul kenn ku ñu woo ni campagne la pour nga ñu jébal doonu murit amul kenn ku ñu woo campagne la pour ni kaay kaay mu wutal la fi bërëb nga dëkk bi kenn ku ne gis ni fii li nga fi gis gisoo ko fenn ki fi ne néew fenn nga ñëw jébbal ko sa bopp bu fekkee dafa laaj itam nga ñëw dëkk bi nga ñëw ñaan fi suuf amul lu ñu fiy maye lu fiy jaay ñu may la nga tabax dëkk bi kon jàpp naa ne dañu war a bàyyi nag bu ñu waxee rek ñaan kii du am murit kii du ab jullit xam nga mooy ki ñëw ñi jébbal naa la bopp àddina ak àllaaxira ngir yàlla ak sëñ Tuubaa ngañ ko nangul nangu ko te loolu def na ko sëñ Saaliw taalibe sëñ Saaliw la. maanaam maanaam lool waaw li nit ñi di wax ne du murit loolu. Euh, ma loolu loolu ñu xamuñu ko ndax murit nag jébbalu na ak diine islaam ñooyam boo nee ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah kenn mënatu laa génn ki boo nee euh, aslamtu nafsi kenn mënatu laa génn ki murit yi la nit ki fas nag ci xolam yàllaa ko mën a àtt ak sëriñ bi moom moo ko xam ak yàlla ak sëriñ bi mu tax mu jébale boppam loolu la ñu war a bàyyi ku wax ñun du murit ku wax ñu ni day xeex yoon xeex yoon ki mun koo xeex yoon wi borom la ba mu baax ma jàpp naa ñu koy xeex mooy ñii fi fii ci dëkk bi te lu sëñ bi wax ñu ñu tegg ko waaw loolu laa ñooñu laa jàpp ne ñooy xeex yoon ak ñi ko jox ay ay ay ay ko jox ay recommandation ñooñu ak ki dànkaafu ñooñu laa jàpp ñooy xeex yoon bi ndax bu ñëpp melee ni ñoom boo liggéey yoon wi ku fi nekk doo fi am doo am doole bu ñëpp meloon yoon bu ëllëgee yoon wi doole ji mu am dina jeex ndax bu ki nekk beloo rek kenn dutul kenn dutul am foo taxaw. kon man jàpp naa ni ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp bala ñoo xoolaat kenn koo xamante mi ngi doxal boppam ma jamal nag man wax dëgg yàlla eh, la ma eh, la ma la ma xamoon ci moom muy ñëw ci sëñ bi ba sëñ bi nelawee ak léegi tam wax dëgg yàlla gisuma ko gisuma waaye xam naa ni ndax man du du woon man lay doon seet. sëñ bi la seet sëñ mooy woon ab sëriñam mu ñëw ci moom di ko siyaare léegi-léegi nag euh, moo fekk ma fa ma euh, ma ma euh, ma ma doon ma ma ma ma ma yóbbu sëñ bi wala buntu yi xat ma dimbali ko ba mu àgg sëñ bi waaye la mu seq sëñ bi man la mu doon sama mbir topp woon sëñ bi tam ba sëñ ba sëñ bi nelawee itam ak léegi yàlla xam ne gisewuñu waaye xam naa ne taalibe sëriñ Saliou la doom ji mu njëkk am ci àdduna sëñ Saliou la ko tuddee kon ku taxaw ne du taalibe bi dama koy weddi ku taxaw ne day xeex tubaay dama koy weddi. kon dañ lay di leen ñaanal nag seen kiliw yi dem ba waaw nañu nekk nekk président Macky Sall nañ ci jàpp ndax yow itam wax dëgg yàlla nun mën nañ laa seere ki ki ci sa taxawaay fii di ko jàppale ba mu jafee ndax bari na nga bari nga ay bari nga ay reportage yoo denc ci kii boo xamante ni bi bi nga koy def wan nga ma yoo xamante ni man sax bi ma ko wan dama ko fàtte te booba euh, ñu ko ñemee jege bariwut te booba dañ kii fis ànd ak moom ànd ak nun dem ki àll bi mba di dem di dem fu nekk ñu dem fa di eh, nga nga nga di ko filmé te boobee yaa ngi yaa ngi ci administration mais su na la affecté di wala nga dàq la waaye lool lépp xooloo ko woon kon bu nee ba fi yëf yi toll fi nag ñu ñu seet ñi man tey loolu sax waxal nga ma ko lafaat nañ ko tontu ñi nga xam ne dañuy wax naan war na jël kii la waru jëtt kii jàpp naa ne président Macky Sall moom képp ku mu jàpp ne war na ko mën a ñor di teg ko ci wetam waaye itam ma koy dénkit ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ak moom di sonn bañ tàmbalee ba léegi mu di leen bàyyi xel ndax nag olof yi dañuy wax ni. ku la ku la ku ñëwu sab aawo du la sa war a mayeb ñaareel moom nag wax dëgg yàlla li man am na ci lu mu ci def wax ni man de sikkuma ko ndax man moom muy ba assemblée nationale te sama xel musu kee nekk te gis naa ñoo xamante xëy ñoo ma gënoon sonn ci parti bi te te te te li ma ci am amuñu ko kon ñoo ñu sooy bari na yoo xam ne la ñu am la ñu am ñoom am nañu ci ñoo ci gën a sonn te amuñu ko ci kon nañu jàpp ni adduna nag mëneesul jël lépp rek lu ne nga teg ko sa loxo man bi ma nekk nekk bi ma jëlee sama assemblée nationale tam teewul man li ma def ci dëkk bi yéen a ngi ci teg seen bët journaliste yi ak ñi ma ko séqal li ma man maa ngi koy def ndax xam naa ni président Macky Sall li muy def baax na ci réew mi ba fekkee réew mi rek moo ma ñor man réew mi laa am ama feneen benn kër ama feneen benn néeg ba ma fi jógoon tey sama njaboot ñoo def ci réew mi kon ku ma jàpp ne mi ngi defal réew mi rek man dama ko war a jàppale man foofu laa nekk may gërëm ma leen di gërëm bu baax di leen sant di di di di di sama mbokk yi ma nekkal département Mbacké yëpp responsable yi ak ak militants yi di leen gërëm di di yàgg di di waxaat président Macky Sall rek ne ko mu gën mu gën mu gën mu gën leen a jàppale ndax euh, Covid 19 bii laal nañu bari do do do do tey am na ñoo xam ne mënuñoo ŋàbb seenu seenu daal di laaj kenn waaye kon xam na ne ko soxla ci ñoom lay ñëw ñooy nag di leen gëstu loolu ni ci baax maa ngi koy baax di nuyu soxnaam di nuyu ak njabootam soxnaam sama xarita kon mu nekkoon seen émission bi ñu dippee seen politique ñu doon dalal l'honorable député Maguette Diakhaté dëkk fii ci Mbacké di responsable politique nekk koo xam ne également ku ñu ràññee la ñu di ko ñaanal vraiment yàlla yàggal taxawaayam ci suñu kanam ñu ñëpp ndax suñu kilifa suñu papa leen jox daje incha allah beneen yoon ci beneen émission asalaamaaleykum.